ndax loolu dafa laaj ñaanu Cheikh Mountakha bu wér ci yéen Cheikh ma Ahmad Badawi bi yëf yi tàmbalee ba tey moom la ko jox maa ngi lay xamal ne mi nga yeesal lépp lu nga xam ne joxoon na la ko di sant nag mbooloo mi nga àndal ci liggéey bi di sant ñi nga xam ne itam mooy seen Babacar ñoom ñi eh, teew fi tey ak seen xam-xam seeni compétence sëñ bi ngi leen di sant waaye loolu dara bettu ko ci ndax Cheikh Amadou yi mu doyloo doyloo ko ci lii lool mu nekk ca ca commencement ba baag si fii tey mu di ko gën di doyloo te waxtu ne day def loo xam ne nii doyloo googu day yokk kon nag Cheikh Ahmad Badawi sëñ bi nee na bis bii mu ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñoom nga woo te nga daje fi ginnaaw bu mu leen santee nag yéen ñi nga xam ne ñi yow ci liggéey bii di dox di dox comme agsi fii tey lii nga xam ne nag moo waral bis bi moom da ko ñor lool bàgg ci lool ndax man nañ ne xalaatam bi nga xam ne moo indi lii lépp muy université bi ak li ci aju moo waral lii tey kon daje bi fi ñépp daje moo tax te wax jiñ fi wax yépp di lu amal njariñ université bi ëllëg jàpp naa ne dana amal njariñ Sénégal gépp Cheikh Ahmad Badawi Cheikh Mountakha nee na lii nga xam ne moom lañu woote tey pour unifier mboolem programme yi mu nekk benn nee na loolu ànd na ci lool bàgg ci lool dégg na ko lool itam ñor na ko lool na nga xam ne nag bu ci am benn jaaxle ci eh, déglu gi nga xam ne kenn ñeneen ñi dinañ ci am geneen déglu ndax jàpp naa ne ñépp a koy dégg te ñëpp a koy joxe doxe Cheikh Mountakha nag li muy laabir lépp muy baax lépp dëgg moom da ca du caaxaan du ko fooyee ba tax na lii tey buñ ko validé moom moo koy garantir ba nga xam ne kenn ku ne dana doxe ci yoon wii nga xam ne tëral nañ ko képp ku nga xam ne yaa ngi jàngale ci Touba danga ci eh, danga ci dëppoob danga ci dox doxin bu dëppoob moom walla am njàngale moom du surtout ko tuddati ci yow noonu la ko Cheikh Mountakha gis mm. fii ci Touba lii ngeen proposé te nekk ja di ko étudier mu jaar ci yoon ba inspecteurs yi yëpp ñëw mu dëppook yoon bis bu ñu ko walidee dañ xam ne Cheikh Mountakha mooy garantir application ci ñëpp kon nag loolu na ci sa xel dal da nga xam ne bis bu ngeen ko defee ba dem ci moom la ca des ci moom lay aju yaakaar naa ne xaj na loolu dana laaj eh, espèce de comité de contrôle wala bu ko mën di tuddee commission boo xam ne xaj na mooy yor loolu loolu itam la nga ca proposé sëñ bi dana ko ca nangu ba nga xam ne loolu danañ ko mën a def tatbiq ba nga xam ne dara du ca wàññiku ci ni mu war a nekkee ba nga xam ne lu ca wàññiku ñoo ñooñee danañ ko teel a gis ba nga xam ne la ca war ci matukaay danañ ko ci def di xamal nag ñi nga xam ne xamoon nu muy demee ëllëg jàpp naa ne kenn du xalaat jaar ci wenn yoon wurut yoon wii nga xam ne moom lañ tëral yoon wii nga xam ne moom la Cheikh Mountakha bëgg yoon yi nga xam ne mu yéen a ko jaar jaar ko ci xam-xam doom agsi fii ñu tëral ko pour Touba bu boobaa jàpp mën a kenn waaye nag ku ko ca def it ëllëg moom nga ko séqal na ko ñépp xam ne lii ñor na ko ñor goo xam ne nii du ca bàyyi dara lu nga xam ne war naa am kon nag na ngeen continuer ci lii ci yoon wii muy yoonu fas yéene comme ni ngeen ko waxee léegi yoonu xam-xam lay doon yoon woo xam ne nii itam du du du réeroo du du du du wuute ak li nga xam ne mooy loi yi ak règlement yi nga xam ne réew mi def na ko te booba tey ngeen fi wax loolu la te yoon bi mooy yoon wi nga xam ne itam du tu am kon na ngeen xam ne sëñ bi ànd naa ànd ak yéen ci lii ànd gu mat sëkk na mu àndee woon ci yéen mboolem ba mu ko tàmbalee te jox la kilifteef gi nga di ko saytu ba nëga ni lépp fépp foo jaar xamal ko ko mu ànd ca ba nëga lii itam noonu la ca ànd ak yow kon kay li ciy des rek mooy da nga fexe ba bu ñu koy def tatbiq incha allah ñu am ay moyens yu ñu ko saytoo ba kenn ku ne dana mën a jaar fa mu war a jaar kenn ku ne dana mën a def dëppoo ak programme bii nga xam ne mooy programme mu Touba ci njàng mi incha allah eh, yoon la wu nga xam ne buñ ca buñ ko buñ ko defee ku ne jàpp nañ ne njàng ci Touba dana def développement bu rëy bu am solo boo xam ne nii comme na ma daan wax bu njëkk jàpp naa ne royukaay lay doon yoo xam ne nii ndax ñëpp bëgg. Sénégal gépp jullit yépp bëgg seen doom xam seen diine seen doom xam alquran xam seen diine kon kay bu gisee foo xam ne nii ña fay jàngale loolu te du leen yàqal seen programme bañ daan jàng dara kenn ku ne yaa ko ne siiw ndax ñëpp Sénégal gépp ko bëgg jullit yépp nag yoon la nga xam ne yaakaar naa ne bu continuer bañ e, bañ wone ko wér jàpp naa ne Sénégal gépp dinañ ci réew boobaa jàpp naa ne état bi dina ci ànd ak yéen ci Sénégal gépp ba nga xam ne mooy yoon ndax mooy lii mooy demande bu mag bi nit ñi loolu lañ bëgg kenn ku ne jullit bu ne comme ni ma ko waxee léegi bëgg na sa doom xam alxuraan sa doom xam sa xam diineem sa doom yaru yarub diine ñëpp a ko bëgg kon lii tey exemple lay doon pour Sénégal gépp daanaa ko wax jàpp naa ne pour Afrique islamiste gépp lay doon